التي تعوز جوائز تغني كل ماهين فقلت حسبي ربي واكتفيت بيعي ولست أدري خير العلم والدين يخزى سوى مليكي لأنه جل jigéen joo xam ne jigéen ji man góor la ci yoonu murit ndax jëlale pusa moom puso la woon buy buy ñaw diggante bu bëgg yàqu mu ñaw ko yorub martoom di daaj fu bëgg a dajj mu daaj ba noppi fees dell ak baatin fu ne fala rek ñi mbokkaloon nag ci Sëriñ Tuubaa ñëpp te ñu xam ko ne mu duma mu def fu mu ne fala koy bu fekk ko fa ndax boo ko fekkut dana la jël si ci saayir wala mu jël si la ci baati kon nag fu mu nekk ko yow fekk fa kon nag defar na ci yoon wi lu bare bare bari loo xam ne ku dib taalibe war nga ko cee sant am na ci yu bari yoo xam ne mënees du ko tudd waaye dafa xóot ba mënees koo wax waaye murit yëpp a ngi ci jëriñu tey te xamuñu ne sëriñ Modou Mamoun moo sabab loole kon nag buñ koy defal bis eh, bis bi war nañ koo fonk lool ku fonkoon alxuraan la ku fonkoon xasayid la ku ku fonkoon ak taalibe la ak taalibe moom ñu baree bari mën nañu wax ne ci lañ jàngu taalibe ndax bàyyi ma ko jàngaluk taali bi muy maam Cheikh Anta sama bakkan nag ma doon sa mbaarik loolu moom mënu mënu ko weesu ci taali bi kon nag bàyyi ma ko njëkk a def moo ko jàngaluk taali bi way juram mu jigéen itam la mu jëf ba tey dafa ëpp suñuy nopp waaye moom jàngal na ko taali bi war woon ko baatin ba tax na sëñ Modou tegoon na ko fu rëy rëy yi mu nekkaloon itam ci kër sëriñ tegoon nañ ko fu rëy rëy rëy kon nag lépp lu ñu ñaan ci bisam yàlla ak sëriñ Touba mën nañu ko defal ci barkeb Cheikh Sidil Muxtaar soxna Aminta mi ko tàmbali ak soxna maam Anta rakkam ak sëriñ Cheikh Bomali mii taaw kër gi ak soxna Astu Mbàkke ñoom ñi nga xam ne bis bi musuñ koo bàyyi musuñ koo sàggane ba ci soxna Ndey Jóob ak njabootu soxna maamante gépp waa Daaru dëkk bépp maasi ci daanaka def benn daayira boo xam ne bisu sëriñ Modou Mamoune bi moo ko tax a jóg bisu soxna Aminta mooy boo xam ne bu ñu bu ñëwee dootoo xam ne kii dëkk ci genn kër gan kër la nit féete kii fee la féete kii fee féete dootu fi am ñëpp nañuy daje ci kër soxna Aminta di màggal sëñ Modou Maama ndax Daaru buñ koy wax sëriñ Modou Maama na tax na ko maam Cheikh Anta bàyyi woon bu bu ton sëñ Modou Maama Daaru Salaam du agsi fii kon nag sëñ Modou Mamoune ne ko si ko jàppale ak sëriñ Touba ba mu àggalee dëkk bi fu fu mu àgg tey ñoo ko dimbaleet may ko baatin ba lum ñaan yàlla def ko ñoo ko dimbaleet barkeel njabootam kon nag eh, bis bi lu ay soxla na ko ci fas te ñu boole ci pës séef rek di sant Serigne Fallou Galass Sylla ak waa rajo bi. ndax nii baax na lool di ñëw ci xew-xew yi deme nii ñuy fàttaliku mag ñi eh, am njàngale la ndax am njàngale weesuwut jàngal nit ñi lu leen di jariñ fii di leen jëriñ fa nu jëm te mag ñi seenu doxin eh, boo ko jàngalee rek bu ko nit ñi déggee bind bi buñ ko taree ak buñ ko tariwut dana ci am luñ mën a jariñoo loo xam dañ leen jëriñ fii jëriñ leen fan jëm kon nag ñi ko fi ñi ci ñëw ñëpp ren liñ liñ bëgg yàlla leen ko yàlla ak sëñ bi defal te li ci ñaan ci li mbooleem liñ fi jàng ni ñaanal sëriñ Touba Cheikh Mountakha mu yàgg fi lool te wér di ci ñaanal sëriñ maam Mor Mbacke mi xalifa maam Cheikh Anta mu yàgg fi te wér di ci ñaanal sëriñ Abdoul Khadir xalifa sëriñ Modou Mamoun mu yàgg fi lool te wér di ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ñaanal njabootuk borom gaawan gépp nag njabootuk sëriñ Touba gépp njabootuk maam Thierno gépp njabootuk maam Maharam gépp waaw njabootuk maam Maharam gépp ñëpp bokk ak sëriñ Modou Mamoun kon nag bis baa ngi noonu lu ci waay ñaan am ko lu ci waay defit doo ko rëccu asalaamaaleykum wa rahmatullah قالوا ليكن لي أب وبصلاتيني تعوز جوائز تغني كل مهيني فقلت حسبي بوقت بيت بيعي ولا سؤالي غير العلم والدين ولا زواج ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw bi nu sante sun borom subhanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam tey jaajëfal al Cheikhul Xadim noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bu tedd bi ñu fàttali ko sëñ Mahamadul Mamoun di santaat yàlla bi nu defalee tawfiq ñu bokk ko teewaat niñ ko baaxoo teewe ànd yéen jotaay bii niñ ko baaxee ànd ak yéen waaye di siyaar suñu kilifa gi ak di jëwriñu bis bi di sëriñ Cheikh Anta ñu ko siyaar baax a baax di ko ndokkeel di ko jox wàccuwaayam waaye ndokkeel ñi nga xam ni ñooy jëwriñu bis bi di soxna aji mbàkke ak soxna ndey jóob suñ leen nuyoo rek nuyu nañu mboolem mbooloo mi ci des mépp ak ñi fi teew <coughs> fàttali ko soxna Aminta mi nga xam ne moo ko daa taxawe ñaan sun moom mu yokk koy leer yokk koy barakaat ak xéewal fa mu nekk ma soxna maamante mi ngi ko daa àndal njaboot gi fi desit di ko taxawu yàlla dëgëral leen kàttanal ba ñu àgg koo taxawee te lépp suñu borom nangu ko tëful ko taagale ko jëmm jooju fàttali mu si Mahmoudul Mamoun yëngatu bi ñu ci yëngatu it lépp mooy ca la mooy la mag ña nekkoon bala ñu am ñu amee ko ca te mooy xidma mooy liggéeyal yàlla waxtaan wi sartam foofu lañ ko jëmale muy jëmmi xidma ci boppam dafay lu am solo lool ci lislaam ndax am ñaari baat yu jege taamu gu wute muy jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla al ibaadatu wal xidmatu day mel ni ibaadatu day loo xam ne yàlla rekk a ko soxla su doon koy su yàlla doon koy jariñu dañoo xam moom rekk ko jariñoo mooy loo xam ne ci yàlla la jëm waaye nag kenn mënu ca jariñu si misaal sooy julli julli gi yow dong lay jariñ sooy aj màkk aj ga yow dong lay jariñ ak yedd si yëpp waaye ja liggéeyal yàlla nag mooy loo xam ne day doon jaam yàlla ba noppi keneen di ca jariñoo lu mel dimbalee te yàlla tax jaamu nga yàlla waaye ki nga dimbale jariñoo na ca ak yu mel ni yooya nii murid doon dox seen diggante Sëriñ Tuubaa it moom moom it muy dox ni digg ma ngi nu saas lépp xidma la ndax jaamu yàlla goo xam ne mbooloo dañ cay jariñu borom bis bi sëñ Modou Mamoune ca loolu la nekkoon Sëriñ Tuubaa jariñoo gum ko jariñoo ak dund gum ko dund ak nu ko dundale moo tax mu dem ba sun doon takkal ko ca garaat muy garaatu xaadimul rasuul ndax baatu xaadim wala baatu xadim yépp ngi jóge ci baatu xidma xidma nag li muy tekki ci arab li muy tekki ci wolof mooy liggéey boo xam ne yow mi ko def liggéeyal ko sa bopp keneen nga ko defal maanaam njariñ la ca bàyyi ko keneen na ko jariñoo yow mi ko def na sàkkoo ci pay gu teew muy soxloo ci daray tey waaye ngërmal yàlla kuy ëllëg nga ci soxla suñ ko waxee ci yoon murid loolu lañ ci jublu xidma nag am ñetti xeet yu wuute mën nañ ko tuddee liggéeyal yàlla rek ci wolof liggéeyal yàlla ñetti xeet la bi ci njëkk mooy liggéeyal yàlla liggéey bu jëm ci diineem ba ñaareel mooy liggéeyal yàlla liggéey bu jëm ci mbooloo mi ba ko ñetteel mooy liggéeyal yàlla ci nitug yàlla su dee bi ma njëkk a tudd te mooy liggéeyal yàlla liggéey bu jëm ci diineem suñu delloo ci alxuraan suñ moom la ñu tuddee al jihaadu fi sabilillah te mooy jihaad ci yoon yàlla te mooy ki jël bakkanam ak àllam lépp jox ko yàlla ngir yàlla fay ko ci aljanna su ëllëgee ni mu ko wax ci alxuraan yàlla nangul na way gëm yi nga xam ne dañ koo jaay seen bakkana seen alal ngir jihaad ci aw yoonam di nangu seeni bakkan di ci rot ñoom ñu ci rotale bakkan lépp ngir yàlla fay leen ci aljanna su ëllëgee yàlla nangu na seen jaayintu googee nit na su xasee ne amantu billaahi te muy dëgg ci xolam su wàcca la jaay bakkanam ak alalem lépp yàlla mu wutul boppam yàlla mi ngi jaay bakkan bi ne su ko soobee mu laaj la ko su ko jamono laajee te su ko laajee faaw danga ko koy jox gis na yonente bi sallallahu ak saabam yépp ñoom dañ leen laajoon seeni bakkan laaj gi leen laajoon seen bakkan moo tax ñu daay xeex ci yoonu yàlla ay xare yu bari cam nga ci dégg xare badar xare uhud xandaq tabuk mu'ta banil mustalik ila axiri xare yu bari yoo xam ne saxaaba yu baree baree bari seen bakkan des na ca waaye ñoom ñu ca bakkan yéefar yu bari lépp ngir yëkkati kàddu yàlla suufeel baatu kéefar kon laaj gu leen seen bon laaju seen bakkan moo tax jox ko ko su dee jamono joo xam ne laajee sut bakkan yi mel ni suñ jamono jii du tee gëm ni ko nga bàyyee ko ko kon lépp lay dalu ci sa jëmm moo xam sa xam-xam la moo xam sa kàttan la sam xel la sa xalaat bu rafet lépp da nga delloo ci yàlla